asalaamaaleykum ñu ngi nuy bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi de Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal maître Aya euh, Boun Malick Diop nekk secretaire général bu syndicat des travailleurs de la justice ñu fa yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni liggéeykatu justice yi ñu ngi koy dal di jànkonteel nii gis ngeen ñu daal di amaloon ay mouvement euh, d'humeur ces négociations ak état wu Sénégal fan la toll euh, wàllum bracelet électronique ak yeneen i euh, ponk yoo xamante ne rek soxal na actualité judiciaire daañu ko waxtaanee tey jii ak suñu invité maître Ayaboune Malick Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Ndeye Comba maa ngi lay fay di la jaajëfal ci invitation bii nga ma invité mm. ñëwoon naa fi. daaw jéeg bu ma juumul. 2019 2019 la woon. en mm. tout cas boobu rajo bi nekkagul woon fii. Mm-hmm. ñu ngi woon côté VD Mermoz voilà. waaw donc defoon nañ ko daaw fekkee déwén yàlla nañ mm. ko baaxantal. ah euh, kontaan naa lool émission bi dinañu permettre. Mm-hmm. ñun travailleurs de la justice yi. ñu mën a waxtaan ak askan bi. Mm-hmm. ba ñu gën a comprendre ci li ñuy dund ak ci li ñu nekk. ndax euh, xeex bi ñuy xeex. am na ay conséquences ñu mën ñu ko tolérer mën ko comprendre. Mhm. mais ñan mooy les travailleurs de la justice exactement. waaw les travailleurs de la justice mooy ñi nga xam ne. Mhm. mooy greffier yi. Mhm. di administrateur de greffe yi di interprète yi ak ñaña àndal di liggéeyandoo ñu leen di woowe les acteurs administratifs de la justice les acteurs administratifs de la justice ay fonctionnaires yoo xam ne lañu. Mm-hmm. ñoom ñooy ànd ak catégorie gi ma njëkk a tudd di def liggéeyu tribunaux yi. Mm-hmm. kon maanaam daal agent de l' état yëpp ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci cour des tribunaux yi nekk plus particulièrement ci greffe yi. Mm-hmm. ak secrétariat yi ñooñu ñooy. Euh, les travailleurs de la justice les travailleurs def yéen voilà lan mooy seen i jafe-jafe exactement les travailleurs de la justice en gros bala ñuy ñëw si seen grève beeg mouvement d'humeur bi. mais yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel si seen biir liggéey. waaw kay sunu jafe-jafe bi njëkk. Mhm. mooy du ñoo am démotivation parce que nit booy liggéey ci ab bërëb doo am avancement doo évoluer. sa payoor baaxul ñu wan la tamit nag bu gannaaw loo tee ñàkk fonk mm-hmm. bu yàggee da ngay sëngeem bu yàggee da sa xol day wéet loolu mooy sunu problème mm-hmm. moom la ñu jànkontoo jànkontool maanaam condition de travail moo baaxul waaw maanaam amoo plan de carrière mm-hmm. amoo payoor gu baax ba pare gëdd gañ la war a jox ca ca ca kër ga joxuñu la ko te ñëpp gis nañu ñun bu ñu bankee suñu loxo rek liggéey dootul am. ñun ñoo yenu service public bi xam nga cour des tribunaux yi dafa am ñaar ñu boole. exercice du pouvoir judiciaire ak service public de la justice ñun bu ñu grévé rek service public de la justice day dee te bu service public de la justice deewee rek. Mm-hmm. automatiquement exercice du pouvoir day dee du pouvoir judiciaire day dee. Mm-hmm. waaw mais lan moo tax souvent aya euh, pour lijjanti kayit papier administratif dem tribunal lijjanti kayit ñëw nekk. tout temps problème da ngay gis ñoo xamante ni benn këyit bu ndaw rek mën nañ si def ay weer wala ay at. waaw blocage boobu loolu lan moo ko waral président sax temps yii dégg nañ mu siy wax. waaw xam nga ñun administration. Mhm. man dama gëm ne administration je suis fonctionnaire. Mhm. administration moo tardel Sénégal. Mhm. ndax da ngay gis liggéey boo xam ne. nit war na ko mën a def ci benn waxtu. ñu def ko ci ñaari fan. liggéey boo xam ne war nañ ko def une semaine. ñu def ko. ay weer ay weer. loolu ñun ñii tey di syndicaliste yi xam nañ ci dara. Mhm. da ngay gis benn décret boo xam ne pour élaborer ko yóbbu ko ba ci président mu signé ko mu jël ñetti at. Mhm. si ñetti at boobu benn benn boo wootee benn entreprise turque. Mhm. en dix mois mu tabaxal la fi lu toll ne comme. centre international de conférence bu Abdou Diouf bu Abdou Diouf waa xanaa tabax yenn ay móol teg ay grue moo gën a metti bind décret donc administration war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax parce que lenteur administrative yi déggoon nañ waaw lenteur lenteur administrative li koy indi nag ça c'est un problème au Sénégal koy indi nag mhm. dafa am benn culture de l'administration boo xam ne c'est une mauvaise culture mhm. administration am na recrutement politique mhm. des gens incompétents qui sont là-bas administration am na une mauvaise rémunération qui crée des conditions de corruption da ñëw mm. soxla sa kayit ñu bloqué ko. voilà di xaar nga am waaw nga am nga joxe dara. nga joxe dara soo joxee dara génn mais administration aussi. Mm-hmm. am na insuffisance de travail. mooy maanaam ki nga xam ne sept heures du matin war na ko fekk postom mm-hmm. il est là-bas à neuf heures bu ñu bu dix heures bu ñëwee li muy def mooy njëkk ndékki mm-hmm. maanaam il commence à travailler à onze heures à treize heures mu dem añi mu dem añi ji quinze heures mu tax ay bagages am dem donc tous ces problème la font qu'aujourd'hui l'administration doit être réformée te pour ñu réformer ko nag a ah, il faut xam-xam ndaxte gis nga ku fi mënti nekk ëllëg président de la république mhm. ku fi mënti indi gouvernement boo wul administration ba mu nekk euh, un moteur huilé doo dem parce que administration oto la ka koy dawal mooy gouvernement mhm. gouvernement bi lu mu ay ay ay ay ay lu mu taqe taqe ci dawal bu oto bi baaxul du gaaw du gaaw mais mais mais uh, ah, bun aya maître aya bun Malick Diop fan yi yéen a ngi yëngu-yëngal uh, 2019 rek si période élection yi dalaloon naa leen mhm. ngeen doon wax voilà Macky Sall signé na décret dig na leen ainsi de suite il va respecter ses promesses mais waxoon naa leen dañ leen di nax waaw tey jii yéen a ngi encore même revendication yi ngeen doon def apparemment Euh, moom ngeen di def actuellement ça veut que li leen jiitu réew mi waxoon defu ko ba léegi. waaw euh, exactement lan moo leen métti ba fan yi ngeen commencé di def ay mouvement d'humeur di banque seeni loxo trois jours ainsi de suite. xam nga Macky Sall. Mhm. bu newul woon président de la république damay wax le pauvre. Mhm. bu newul woon président de la république. le pauvre ndax lan. waaw kay maanaam quelque part dama koo xaw a yërëm ndax président Macky Sall. Mhm. ba ñu amee suñuy problème mhm. ne dañoo bëgg def suñu statut dañoo bëgg lii dañoo bëgg lii administration fa ñu jaar négocier yëpp duñ ko bloqué mhm, mhm. bloqué gérer ñu ne administ statut bi waa fonction publique bloqué euh, fonds commun waa ministère de la justice bloqué ñëpp bloqué ñuy xeex di xeex ba mun a ñëw leen ñu ñëw ndeysaan moo toog déglu ñu deux heures de temps président waaw deux heures de temps avec une politesse extraordinaire jox ñu cër goo xam ne fonctionnaire ñu bàyyi sax joxuñu ko. Mhm. déglu ñu ba ñu dégloo mu ne après mais il s'est dit mais lii où est problème. Mhm. statut effectivement greffier ba ñu ko expliqué luy greffier. Mhm. ne ko yow sa serment sa greffier moo la ko indi sa kër. sa sa sa résultat. greffier ko déclaré expliqué ko ne ko fu juge signé greffier moo ko contre signé. expliquer ko loolu expliquer ko situation personnelle si la nangu. Mhm. créer ñu statut boo xam ne greffier dañ koy gën a jox gëdd. Mhm. maanaam mu dem A2. Mhm. ña nga xam ne toogoon nañu ay année amuñu woon euh, concours ñu jël leen ñoom ñëpp jàll leen ci corps bi ñu corps administratif mais accepté. salaire yi mu accepté ko yokk lépp mu defar ba mu yemb. ñu génn foofu. mu joxe ci ay directives mais gis nga la ma lay wax rek mu a dugg directive bi administration yi commencé bloqué te ñun syndicat lañu. boo ko defee maanaam le président wax yëpp defuñ ci dara. waaw déedéet président bu ko waxee. benn affaire. Mhm. bu ñu génnee. Mhm. ñoom dañuy bloqué commencé at bloqué at seen bloc. bu ko defee ñun syndicat du ñuy gësam ba ba mu yëngatu. Mhm. bu ñu gësamee ba mu yëngatu mu ne lan moo xew. lan moo xew bu gaa yi waxee ñu commencé waat waaw ñu commencé waat non defar ndaxte ku nekk day wan ba wane ne man bloqué wu ma. noonu la ñu nekkee di nekkee noonu ndeysaan ba ci biir élection yi. ci biir élection bu ñu gësamee mu ne lan moo xew. Mhm. gars yi daw indil ko décret mu signé ko. ay décret yoo xam ne moom mi ngi ko adopté woon. Mhm. le vingt cinq août. ñi ngi ko xam nga vingt cinq août juillet deux mille dix huit. Mhm. ña ngi ko signé deux deux mille dix neuf la veille des élections. kon bu ma neexee ne le pauvre ndeysaan ndax idée bu mu am. bu mu duggee gars yi yàqu léegi. maanaam moom bëgg na def wante ñu ko wër. mais sénégalais yi ñoo koy. ñoo ñoo ñoo def liggéey bu man si loolu laa gis. cest il faut que ñu xoolaat administration. Mhm. léegi dama lay jox benn exemple. Mhm. xoolal sunu grève bii ñuy yëngatu. Mhm. ñun laajtewuñu lu bees. président Macky Sall dafa signé ay décret décret yooyu mu signé. ngeen bëgg ñu appliquer ko. ñu bëgg ñu appliquer gars yi ne du fi amee. maanaam statut beeg salaire yeeg. dafa am ñoo xam ne du ñoo am na ñoo xam ne duñu ne dee greffier du fi avancé. du maanaam du fi du ngeen fi tekkee daal. waaw waaw am na ñoo xam ne ñu ne dee fonds commun yi waruñu ko lekk. xoolal lu mel ne décret yoo xam ne ñi ngi ko signé depuis deux mille dix mm-hmm. war ko publier mm-hmm. ñu bloqué ko secrétariat général di gouvernement teg ci loxo ba pare dellu nag suñu jàpp suñu ministre la justice wax ko convaincre ko boole ko mer ñu mere ndaxte mm-hmm. maître Malick Sall dafa ñu mere si liñ koy attaqué ci mbedd mi ah waaw dégg ñu boole ak pour ñu delluwaat yàq loolu yëpp. Mm-hmm. loolu mooy Sénégal moo tax man la bu ñu ne Macky Sall foofu ngeen toll nii. ci loolu la ñuy wax waaw moom daal. Mm-hmm. bu dee décret la signé na ko. instant bi mais bi ngeen yëngalaatee fan yi oowu leen déglu leen. ainsi de suite gis nga ba ñu ba ñu déposé suñu préavis de grève. Mm-hmm. ñu ngi ko déposé le 6 février. comment 6 février. le 19 février conseil des ministres. mu ne ministre du budget. ak ministre de la justice régler de manière consensuelle le pro le, problème des travailleurs de la justice. Mm-hmm. ñu bind ko ci communiqué bi ñëpp gis ko. waaw kilifa gu toll ne comme président bu xafee ba wax loolu mais kon heure bi février la ko waxoon kon heure bi waroon nañu romb loolu yëpp. kon yéen lan ngeen di wax Malick Sall est-ce que mi ngi def. mais Malick Sall moo Sall ngeen xalaat ci seen. non Sall Malick Sall moo liggéeyul. non seulement liggéeyul mais léegi dafa fas yéene defanteeg ñun xeex ak ñun. ci ah dellu ci président ne ko président lii boo ko defee day yàq lii boo ko defee ndax moom it moom it day day jéem a nax président fu mu nekk mhm. nii ne ko lii baaxul waaw maanaam buñ ko appliqué buñ ko appliqué wax léegi xoolal comme euh, le 17 juin président dafa ne ko essayer de tenir un dialogue apaisé avec tous les composants mhm. des acteurs de la justice dégg nga xoolal ñun ñu nekk ci grève de mu bàyyi ñi nga xam ne ñun ñu nekk ci grève dem woo el benn el dissidente boo xam ne tajuñu fenn. Mhm. mooy beneen syndicat bi. waaw ah. nan la tudd yow <laughs> est que xam nga ko. union nationale des travailleurs de la justice. xam nga yaa ngi nii xam nga tajuñu fenn. ah <laughs> woo leen. <laughs> recevoir leen. Mhm. te ñooñu tey. Mhm. waaw kay ma leeral ñooñu tey. waaw ñoo doon wër ci biir tribunaux yi di ñu joobe. di yàq suñu der. di wax Malick Sall lañ jënd. Malick Sall leen jox xaalis. Malick Sall da leen di may essence. wax wax wax ba. maanaam ngeen baal ma ci wax ji fen travailler de la justice yi. ba ba yàq sa der. waaw ba tàngal xolu yenn nit ñi signé leen ay pétition yoo xam ne ne leen pétition yi du dara lu dul duñ leen bëgg forcer ñu dem ñu dem euh, grève. Mhm. tey pétition yooyu lañu jël ñoom yóbbu ko pour def ko. pour def seen nekk syndicat. waaw maanaam def ko wane ko ne ñii ñoo nekkoon ci assemblée général ba. Mhm. maanaam du ñoo fen a fen a fen mhm. ba am syndicat. waaye gis nga li yàlla di def. Hmm. ñun ba ñu demee ay kilifa lañu man parce que ñun du ñu xeexantu ñun balaa ñoo xeex dañuy dem ba xool xeex bi dafa ñor maanaam Macky dafa ñëw ñu may ko 14 mois di ko xool xool ko ci gauche xool ko ci droite bañ juum ci moom. Hmm. bañ ko prêter ay intention bañ demee ba xam ne kii nag la ñu président jox dafa ñu ko bëgg xañ. ci lañ hmm. koy songu xeex. mu nekk nag xeex bu tara tara tara tara gis nga nag. li mu te yéen fas yéene wu leen dellu gannaaw. billaahi. bu ko jëlee benn jaral nañ ko jaral nañu fukk. malgré jafe-jafe yi nga xam yéen a ngi koy indi Sénégalais dégg nga li ma na ma Sénégalais yi baal sax si tima li ma waat bu ko jaralee benn jaral nañu fukk ndaxte dañoo xam ne mag mu toll ne comme Malick Sall liggéey ba toll ci bu doon fonction publique retraité na bu yàgg mhm. liggéey ba ay dundam sotti mu am lépp mu waroon nekk ab kilifa yërëm ñu yiir ñu bu ñu bëggee yàqal ñun ñi nga xam ne amaguñu dara naa n'avons ko nos chemises à perdre nañu xeex ak moom ba mu saf sap. mais pour yow lan moo tax maître Malick Sall dalal dalal beneen syndicat. waaw léegi si kaw defante boobu. Mhm. mu jël syndicat bi nga xam ne gréewul. nga xam ne ama amaguñu sax récépissé. nga xam ne ñoom bokkuñ ci mouvement di grève waaw nga xam nga syndicat boo xam ne amul amagul existé gul. Mhm. maanaam bu doon nit la ñu ne ñu ngi si biiru ndeyam kenn wasi na gugu ko. <laughs> yaa ngi dégg. Mhm. bu doon la ñu ne mi ngi ci biiru ndeyam kenn wasi wasi na gugu ko moom la tubaab di être en gestation. amagoo récépissé amago plateforme revendicative ay punkalum jëmm di grève bloqué justice ah. Mhm. Malick Sall bëgg nax gouvernement bëgg nax opinion publique bi indi beneen syndicat boobu. syndicat boo xam ne eggagul ex existé gul. dalal ko waxtaan ak moom génn def communiqué congé mais kii ku muy nax te li gën mhm. ministre de la justice. au moment au on dit que il est en quarantaine en quatorzaine. voilà d'incubation. ah de la de la Covid 19. ba xam ne keroog ba mu waree dem assemblée nationale yóbbu fa affaire bracelet yi kii la fa yóbbu nu mu di euh, le le le secrétaire d'état chargé de la promotion. Mhm. des droits humains et de la bonne gouvernance moom moo dalal ñooñee. ba pare nag foto wu ne fang. Mhm. waa yow un ministre de la république ku nekk quatorze ans est-ce que warul joxe sax exemple. Mhm. du yow maa ngi nii ñëw tey seet si la. jël distance xoolal distance bu ngand laa jël xiddi la. jël sama mission moom moo waroon ñu ko joxe exemple. maanaam te deuxièmement un ministre boo xam ne yow. Mhm. yàlla dafa def ngay diriger. Mhm. benn institution boo xam ne. dafa porté le nom de la d'une vertu muy la justice. te ku ne justice xalaat yàlla. Mhm. mais da nga war a wane af njub. nan nga mën a jël noo xam ne il n'existe pas légalement. di def nag ñoom déclaration sa à dire tey aujourd'hui c'est l'État qui est en marge de la légalité moo mu incarne ko muy ñaar ñetteel ba man dama xamul nan nga mënee euh, en tant que kii bu ñu koy waxee en tant que ministre de la justice. di tuer le pro le le principe de neutralité de l' état. cest à ñëw fekk une guerre bu ndaw bu nekk entre de deux deux factions. mu dugg ci mu dugg ci bi. mais loolu dafa grave. alors ko moom dafa waroon euh, dafa grave mhm. léegi nag xam nga lu muy tekki. Mhm. man li may gis mooy Malick Sall mënul téye ministre de la ministère de la justice. parce que 1960 ba tey lii mi ngi doog am. il est incapable yéen a bëgg ñu changer Malick Sall non waxuma na waxuma ñu changer ko de. Hmm. mais que ñun ñëpp constaté man man bokkuma ak syndicat yi nga xam ne. Hmm. dañuy wax président dàqal ki hmm. man jot te fais constater. ne ko xoolal waa ji mënul yore ministère de la justice. maintenant il est il est devant ses ko neexee mu bàyyi ko fi. Mm. mais que tous les Sénégalais. mais seen mouvement d'humeur di ngeen wax maanaam nañ dàq Malick Sall comme ñeneen ñu koy waxee. man day duma ko wax. nañ dàq ministre de de de l'emploi nañ dàq ministre de l'éducation ainsi de xam nga man duma ko wax xam ko mm-hmm. man républicain la je suis un greffier. je sors d'une école boo xam ne def naa fa deux ans ñu may former. Mm-hmm. jàngal nañ ma fa ay valeurs te valeur yooyu ñu ma jàngal mooy na nga jox président de la république gëdd. Mm-hmm. mais. man ba ma gis ba ñu dajeeg président ñun duñu ne ko président on n'est pas venu négocier avec vous. Mm-hmm. du ñoo def plaidoyer parce que man pour man président arbitre laa ko jàpp c'est un neutre. Mm-hmm. mais tey quand un ministre ne fait pas son travail on est libre de le critiquer. Mm-hmm. nous sommes dans une démocratie. nous sommes dans un pays où il a l'expression de la liberté. moo ma may tey ma toog fii rajo bi di ko wax am na foo xam ne bu ñu toogoon di wax dëkk yoo xam jàpp kii dóor dama ay faaram. Mm-hmm. mais amul Sénégal nous sommes dans un pays de liberté on est libre de critiquer un ministre. maintenant nag ki ñu dem ba fal la ministre nga jàng am diplôme am age foog naa waroon nga dem ba dépasser question de fierté mal placé waa ji nee na ma sama bët dafa xonk tey ma teg moom loolu du état. Mm-hmm. un état man gis nga y a deux yoo xam ne ils ont forcé respect. Mm-hmm. mooy le jeune ministre la Fofana. Mhm. bu may gis tout le temps je ne le connais pas musuma dajeeg moom ci xaw ma sax fu mu dëkk. Mhm. Euh, ça va je ne lui tresse pas des dama koy gis mais day régler ay problème mhm. maa ko mag fuuf. dama koy gis muy deewoo di régler ay problème ma ne voilà lui il. s'est régler comme yenn problème Fofana Abdou Karim Fofana. dama koy gis ci terrain bi muy ñafe. fu mu toj. ah, ah yow li muy toj kay gis nga ko Dakar léegi gis nga. non non yow laay laaj le nouveau visage le nouveau visage de Dakar da nga koy gis mu wàcc sur le terrain xanaa toroxal commerçant yi la fi nekkee déedéet dama la ah, da nga koy gis en tout cas en tout cas ah. man Dakar ma mais wax ma Abdou Karim un certain moment rural mm-hmm. mais je commence à voir point boo ko gis muy commencé changé il y a une certaine salubrité qui commence à avoir am na yenn rond point fii rond point liberté six bi. Mhm. mais nay temps boo fa rombee c'était catastrophique. mais léegi la ëpp a ëpp jaaykat. d'accord xam nga xam mais loolu gëj nga fa jaar xam nga loolu c'est lié mhm. mhm. ma mën yaa ngi gis mi ngi ñafe. le ministre euh, de la santé. Abdoulaye Diouf Sarr. que je ne connais de père ni de mère xaw ma ko dama koy dégg rek. ma koy mais tu tu vois que. liggéey daal mais mi ngi ñafe il se de mais nga nekk ministre de la justice yow. Mhm. mag ñooñu ñëpp. ñuy grève nga ne non ñii du ma wax ñoom <laughs> du wax ak yéen. waaw loolu kon ba oo oh, yéen waa sud juste toog dama bëgg ñu leeral. Mhm. mbir. Mhm. on ne cherche pas une audience. on ne pas une audience daw ñu gënaaw une audience ñun ce qu'on dit c'est très déposé un préavis de grève. un préavis de grève est une interpellation mmh. des travailleurs le d'une interpellation des travailleurs mm-hmm. dans le dans le préavis de grève il y a trois points qui dépendent directement de lui non pas du ministre de la fonction publique non pas du ministre du budget mm-hmm. yëpp ci loxoom la nekk s'il a des réponses à ces interpellations na ñu wax ñu ci bu nekk nañu lii moo ñu kii s'il n'a pas de réponse na toog ci roxam ñun nañu nañu wax ba am interlocuteur parce que duñ ko taxal ndombal tànk. Mm-hmm. Eh, te xam naa lii mu taxawee sénégalais dañ ko ci seetaan gouvernement bi duñ ko seetaan président de la république duñ ko ci seetaan. donc te yéen léegi euh, fan ngeen bëgg a yemale xeex bi nan ngeen fas yéenee def. ñun waaw. xam nga ñun ay sénégalais la plan d'action. xam nga sénégalais ñu maanaam bu maître Malick Sall réagir président réagir sur juste nii nii lay doxalee xeex bi. non xam nga anglais du ñuy wax benn proverbe bu xaw ma nu ñu koy waxee ci olof. Hmm. mais xëy na bu ma ko waxee ndànk gars yi nañ ko comprendre anglais du ñuy wax action talks louder than word. Hmm. maanaam jëf moo gën a leer wax. ba ma koy tekki. Hmm. action talks louder than word. ñun ñu ngi ci jëf ji de. te nag loolu. te loolu mooy la sunu cheikh bu baax boobu sunu maam ju baax jo maam Ibra Fall la ma doon wax maa ngi mm. xaar ba ba si penc mm. xool ndax yàlla dina fay wax bàyyi jëf mm. ñun ci jëf la ñu nekk bu xeex bi ñuy xeex fan yi incha ci kanam la jëm ndaxte du ñu ay seen ay Sénégal du ñoo am ay droit et nous ne demandons mais tamit est-ce que yéen tamit aya ak réew mi fi mu toll ak crise sanitaire bi fi mu toll est-ce que heure pour def ay réclamation est-ce que heure grève la tamit ak réew mi fi mu toll nii nii nii waaw xam nga nit tant que mi ngi mhm. kenn du dee. Mhm. gis nga bi ma lay wax ak yaw nii. Mhm. am naa dëj sama benn kilifa gu baax a gaañu. mais dafa bokk ne moom ba mu gaañoo démb jooy naa ko mais tey maa ngi toog fii di wax ak yow. bu ma paree dem ja dëj ba jaale. le président nous a suffisamment a été clair en nous disant il faut apprendre. à vivre avec le gis nga lu wax jooju wax ju important la. boo demee Taïwan. boo demee Taïwan wala nga dem Hong Kong. Mhm. ñoom bañ ko comprendre yàgg na tout le monde en masque. Mhm. mosuñoo mosuñoo quarantaine ñoom. Mhm. tout le monde en masque et les gens travaillent. et c' est l' occasion de dire man je crois fondamentalement. tey si tous les Sénégalais. respecter le port du masque. et observer observe le le le minimum de distance physique. ak distance sociale maanaam duggante ak génn. bu ñu ko defoon un mois. respecté les rassemblements et tout waaw bu ñu ko bu ñu ko waxuñoo ñu bañ ñu bañ a génn. mais ñu moytu jege jegeyantoo bi. bu ñu ko defoon un mois waxuma tamit tamit di sol masque di ko teg sa suufu sikkim ak wala sa mm, suufu mm, bakkan mm, yooyu déedéet ñëpp sol masque muur sa bakkan muur sa gémmiñ bu ñu ko defoon un un un mois affaire dina wàññeeku bu baax dégg nga donc moi c'est pas ay café ce qui se passe tey ministre de la justice lim ñu bëgg def bu dalee suñu kaw moo gën a métti junni yoon ko coronavirus li mu mën a def travail de la justice maanaam dafa nar a yàq sunu àdduna ak sunu àllaaxira moo tax ñu ay sénégalais lañu mais fi ma bëgg a waxee est-ce que instant bi Macky Sall président Sall tal na leen. ak fi mu toll nii dossier corona ak réew mi fu mu toll si ay jafe-jafe. dossier dossier corona est-ce que waroon oh. xaar tuuti may ko batma déet ñun dañoo nekk di lab de xam nga lab <laughs> kuy lab. Hmm. bant ba mu jàpp da ciy ngoy du ko bàyyi mukk ndax bu ko bàyyi rek al ko. Hmm. waaw maanaam waa ji daf ñoo imposer xeex bi. Hmm. ndax ba muy bind président. duñ ba mu koy bind ñun naruñu woon grève de ba ñu ba mu koy bind ba ñu ko yëgee la ñu dugg ci mm-hmm. grève bi mm-hmm. on avait prévu de faire une campagne de sensibilisation sur un mois mm-hmm. xool fii ba biir juillet bu juillet bi mais ba ñu yëgee ne ma ngay bind loolu te mi ngi jéem a sàq mi noppi gouvernement bi si lañ dugg ci xeex si ngeen ñëw lañ si dugg donc du ngeen ko may dara non duñ ko may dara dox ñu koy may dara moom mayu ñu dara daf ñoo bëgg yàqal mais on va se battre voilà ñu ngi leen di fàttali yéen ngi suivre seen émission sociale tout la ville par la tey jii Ndeye Comba Moreau dalal maître Aya Boun Malick Diop nekk secrétaire général bu SYTJUST du syndicat des travailleurs de la justice euh, doon nañu wax si affaire u euh, bracelet électronique euh, maître Aya lan nga xalaat si bracelet électronique bi ñuy wax dañ koy instaurer fii ci Sénégal. bracelet électronique bi. Mhm. man damay ne mën na nekk lu baax. Mhm. waaye nit buy wàññi du wax du commencer par cinq wala six un lay commencer maanaam am na loo xam ne mën na xew ci dëkk tubaab yi mu nekk lu baax lool foo foofu mais mu nekk problème fii ndax da nga koy xool ak si affaire coronavirus bi bi ñu bëggee def quarantaine xool nañu ba xool ne mënut a jàll fi nañu wut beneen pexe. Mm-hmm. man balaa ñoo wax affaire bracelet électronique bi. Mm-hmm. nañu defar kaso yu baax ba pare. ndax ala kulli aali dañuy soxla kaso ndax bracelet sa avant ñu la koy taxal sa xëy na di nga jaar kaso di nga jaar kaso ba pare ñu doog a xool say mbir ndax dañu la taxal kon juróomi milliards yooyu ñu jël bi ma dégg ne loolu lay jar mënoon ci tabax ñaari kaso yu baax benn Dakar Dakar cent cent mètres dafa màgget. Mm-hmm. Ah? rëbës rëbës gii dafa màgget. Mm-hmm. ah demal ay si région yi nga fekk fa ay bu ñu la wanee ne la fii kaso la doo doo doo gëm nañu moytu superstition yooyu ñuy dugg di wax mm-hmm. képp ko tabax yaa ciy dugg. man foog naa loolu moo ëpp ah, solo. mais pourtant ñu ngi doon wax bu Sébikotane ainsi de suite. waaw loolu c' est initiative loolu c' est à saluer. Mm-hmm. bu Sébi bi se est à saluer mais nañu dolliwaat beneen. Mm-hmm. wala ñaar Tambacounda ba ma newoon greffier foofu. mais dem naa gis seen kaso bi kaso bu tàng jër ba parfois gars yi guddi ci ci bi la ñuy tëdd. Hmm? waaw loolu ma c' était en 2004. maanaam yi si boppam sax dañ ko war a defaraat. duñ ko non ko war a defaraat. ba pare yokki kaso encore euh, les agents de l'administration pénitentiaire mhm. ñu mettre leen dans des conditions d'exercice de leur de de de, de, de leur mission de sécurité parce que parfois tamit ñoom am nañu leen am na yoo xam ne da leen di metti mhm. xëy na amuñu syndicat ay hommes de tenue la ils sont astreints mais ñu régler problème yooyu xoolaat seen i rémunération ah seen i salaire mhm. moo gën ñu leen di nax di leen wax ne par exemple fonds commun greffier yi teg leen ci bët loolu bokk nañ ci plan plan plan plan plan ministre de la justice. Malick Sall way jël leen ci fonds commun ngeen jox leen ci ngeen jox leen ci agent pénitentiaire ndax ñan nekk ci tuuram ñoo ko bind ne ko xolal greffier liñ xaar ñu am dafa bëri te du dëgg. <laughs> Mhm. leen ay indemnité wutal leen ay ay ay ay armes adaptées nu mu tuddati à la surveillance euh, des détenus yooyu moo ëpp solo. ay bracelet électronique benn bracelet boo xam ne. xamuñu kan ban kan mooy kan mooy nekk opérateur bee mhm. et cetera et cetera. ak yan type de personne lañ koy takkal mais justement mhm. man daal neew ma lu bon la mais nañu nit ku nekk euh, da ngay def la nga tollool mhm. maanaam ñun nous sommes un pays pauvre nous n'avons pas une grande technologie mhm. loolu tubaab yi nga xam ne ñoo am technologie ñoo ko mën a def xam nga li kii di wax euh, gone li ñuy wax euh, ah, njulli njulli du so du song ngoro duñ la jongal tey nga da ngay tax jabar loolu loo loolu la may niru parce que ñun nous du ñu waroon bàyyi ba am benn genre niveau de développement ñu dugg ci yooyu voilà gis nga ni daal dafa teel. Euh, Aya coronavirus dugg na ci biir prison yi loo siy wax luy solution bi. man daal solution bi mooy mm. euh, gis nga. pour arrêter ko. mooy rek na Sénégalais yi nangu. Mm-hmm. li président Macky Sall wax keroog. Mm. nañu respecter le mesures barrières. pour le moment amul vaccin boo xam ne amul traitement bo mesure barrière. Mm-hmm. nañu fexe ba ba mu ñu dal. mais encore ci biir kaso bi c'est c'est c'est plus grave. mais waaw. parce que déjà ni foofu nit ñi par exemple Rebeuss gis nga ni ñuy dëkkee ainsi de suite. mais justement foofu distanciation sociale mënu mooy li ma la doon wax sànq. waaw balaa ngay bracelet nit ñi. waaw xoolal d'abord ba pare kaso yi. balaa nga leen di bracelet. Mm-hmm. xoolal tey kaso yi kaso nekk foo xam ne ku nekk chambre chambre individuelle ngay ku nekk chambre individuelle am na ci dëkk tubaab yi. Mhm. tey mënoon nañ def dina mu benn kaso boo xam ne au minimum dina am mil lits. Mhm. mille lits peut-être répartis dans cinq cent chambres. donc est-ce comme corona bi du def ay ravage ci prison par rapport a conditions de détention yi nga xam ne ñëpp xam nañ ko. ah fu mu nekk nii day. Mhm. nañu def geste barrière yi maanaam mbun masque yeeg yooyu ak euh, nu mu tuuti les les les raxas loxo yeeg yooyu nañ ko fa def ba pare ba pare nag boole ci ñaan gu rëy. <laughs> man daal loolu laa en dina compliqué de. waaw ah, c'est bi yan jafe la indi si liggéeyu travail ci ci les travailleurs de la justice si seen liggéey. bon jafe-jafe la leen exactement. bon am na benn euh, amoon. Euh, mm -hmm. tout récemment tribunal du travail au palais de justice de mhm. benn magistrat bu mu fa dal. ak euh, benn greffier dégg na ak benn agent bu mu fa dal muy ñett. xam nga loolu mooy wane ne feebar bu doy waar la ràññeewul kenn bu doon dafa ñëw laal benn koor te ñu xalaat ne dafa jëm mais ñëpp la laal mhm. ba mu amee arrêté nañu agence yi mhm. waaw ba ñu ko am ba mu arrêté nañu audience yi ñu ngi leen di dégg naa sa macha allah daal mhm. yàlla jëm kanam yàlla bu mu dalati keneen te tamit ba muy doog a commencé le 16 mars arrêté na wàññi woon nañu rythme audience yi aménagé ko bon comme secteur yëpp dans la monde laal na suñu secteur rythme de travail bi wàññi na ko mais depuis que ñu président jëlaat ye président de la république jëlaat yenn mesure rythme de travail bi commencé na waat mais mm-hmm. malheureusement si la sunu grève bi. tàmbali tàmbali. Mm-hmm. waaw mu gën a exacerber situation yi mais laal nañu daal comme ni mu laalee. mais mais rythme bi bu bu ngeen commencé waate seen liggéey normalement. est-ce que état bi jàppale na leen si ay condition am ay gel antiseptique respecte ci ci audience yi distanciation sociale jox nit ñi ay masques ainsi de suite est-ce que équipé na leen par rapport à ça am na am na am na état bi lu mu def mais matul doyul doyul demb démb dugg naa ci palais de justice de Dakar mhm. gis naa fu ñu def ay gel mhm. mais boo ci laal lay jeex gel yëpp jeex na waaw boo ñëw bës ay ci miir dañu fa ay gel boo bës day jeex waaw nañ ci def lu doy am ñoo xam dañ koy approvisionner de manière continue parce que milieu public la. Mm-hmm. nit ñi duñ fay ñëw. te képp ku ñëw tribunal boo solul masque waruñu la bàyyi nga dugg. voilà léegi euh, am na benn problème bu am ak benn site sama casier judiciaire point com est-ce que mën nga ñu leeralal site boo xamante ni mu ne dafay faciliter nit yi ñu am ay casier judiciaire est-ce que fiable na waaw wala déet. non site boobu fiable. Mm-hmm. ndax ña ko def. Mm-hmm. amuñu woon euh, maanaam nekk ñu loolu loo xam ne xam nga nit booy def benn acte. Mhm. ci administration il faut que benn loi prévoir ko wala mhm. benn décret tey bu amoon benn décret boo xam ne day ne damay euh, créer du ñuy créer benn entreprise. Mhm. boo xam ne délivrance en ligne. entreprise bi cahier de charge lii ak nii lay mel. Euh, nu mu tuddati. nañu def appel d'offre ñu ne Ndeye Kumba Maroon moo moo moo ko gagné. Mm-hmm. ñu tuddee ko réew mi sama casier. Mm-hmm. par exemple. Mm-hmm. ñu agrémenté la ñëpp gis mais ak loo tax nekk lu officiel. waaw waaw maanaam dafa am administration la ñu nekk daal. dans un pays organisé lépp ñu xam kan moo nekk ci gannaaw. mais nu mu tudd yeewu suba rek defar sa benn affaire sama casier. waa ji def ndonte sax triandé woo leen ah parce que ab ba ma vérifié gis naa ne wu ñu kenn. boo leen fayee lañu la wax. Hmm. ñu dem wutal la ko indil la ko ñu dem indil la utal la casier waaw mi ngi hmm. koo xam ne da nga soxla kayit yónni ma yónni ma ma dem doxal la ko xam nga loolu am kenn amu ci problème hmm. mais boo demee nag ba kii ko pe kii ko standardisé ko wutal ko effigie ak lépp day nekk leneen et puis dafa laal day la day day ak lu mu mënti doon rek lu mu gis nga tey boo demoon bay def na damay damay créer entreprise wutal ko pancarte rek yëpp fisc day ñëw ne la eh, demal demal registre de commerce nga dem déclaré wu ci nga déclaré ko ba pare nga doo ko def lii donc dëkk bu jaar yoon daal. léegi ñooñ ba léegi ñu ngi continuer di fonctionner wala. arrêté nañ ko non bàyyi bàyyi nañ ko parce que ba ma fàttali ko. Mhm. procureur de la république déggoon na ci sax waaye gis naa ne ñoom it génn génn nañ ci bu gaaw. Mhm. comme loolu lañ ci génnee bu gaaw moo tax euh, ñu coog a fay. mais maître dañuy gis ni réew mi. Mhm. Euh, ku ñu tëj ci kaso bi rek nga bëgg a génn euh, wala bëgg am liberté provisoire souvent da ngay def grève de la faim wala nga ne da nga feebar lan nga ñu mën a wax si loolu. waaw xam nga gis nañ ñu koy wax dañu obtenir gain de cause. dama feebar dafa feebar dafa feebar avocat yi après ñu libéré la. xam nga wala nga def grève de la faim. Ndeye Comba. Mhm. problème mu Sénégal mooy du ñoo nekk dëkk boo xam ne mhm. ñun ay ay ay ay ay nit ñu ñuul lañu. Mhm. mais lu bari ci ñun ñu ko copier ci tubaab yi. mais comme lu ñu ay tubaab. yu ñuul yu yooyu ñu copier ci tubaab yi. bu ñëwee ba fii dañ koy ñuulal. dañ koy maanaam acclimaté. waaw xam nga dëkk bii dafa nekk dëkk boo xam ne ay principe ay principe bu tubaab moo fi nekk la ñu bëgg a euh, appliquer. Mhm. mais ay nit ñu ñuul la fi nekk. Mhm. ak non réalité. Mhm. loolu moo waral euh, nit bu amee problème ay intervention am gis nga ñun ñuy jàppee fi intervention. boo ko defoon ci dëkk tubaab yi lay jàpp. intervention. maanaam li ñuy intervention. li ñuy intervention xaaral ma dem seeti procureur. Mhm. diw jàpp nañ ko. Mhm. wala xaaral ma dem seeti juge boo ko defee réew tubaab yow sa bopp ñu jàpp la. non loolu loolu entrave à la justice la. bu ko bu ko bu kii defoon nu mu. wala diw am na problème xaaral ma oo sama. magistrat diw sama xarit la. loolu boo ko defee délit bu garaaw la. Mhm. bu ko bu ko kii defoon nu mu tëddi euh, kii bii waaye Donald Trump. bu ko defoon coow ju rëy ko fekk. mais malheureusement je ne dis pas malheureusement heureusement. nous sommes dans un pays boo xam ne le mot ndeysaan am na fi. Mm-hmm. ndeysaan mooy defar lépp. Mm-hmm. ndaxte léeg-léeg nga gis ko xiif nga ne ko ndeysaan am ma may la. Mm-hmm. ndeysaan amul ci tubaab bi maanaam romb nit nii mu kii nga may ko kii déedéet da ngay liggéey am. ndeysaan moo indi solidarité. mais ndeysaan aussi moo yàq réew mi parce que ñun on a on ne s'est pas sanctionné. le Sénégal ne pas sanctionné. da ngay gis ku def fi lu ne we nga ñu jàpp commence bëgg a ndeysaan. gis nga tey fii bu nit rayoon nit. ndeysaan pourtant ku baax la waaw gis nga nit tey bu rayoon nit. Mm-hmm. bañ ko bëggoon exé exécuté léegi nga dégg ndeysaan nañ leen ko baal. Mm-hmm. ndeysaan xam mm-hmm. donc daal euh, li ma ci bëgg wa c'est c'est un peu profond dafa jaaxal ñu bari. waaw déggoo boo nee feebar mm, say avocat la yàlla après ñu exemple. man boo nee gis nga fi kaaw Bouga Zélie Thione Seck ainsi de suite. yooyu yëpp gis naa ko mais. xam nga nous sommes dans un pays quand même qui a ses réalités. Mm-hmm. Euh, bu coon sekk bu bu ñëw bu Bougazelli bu kii bon man je me dis que c' est des procédures rek c' est des c' seen avocat wa mm-hmm. bu coon sekk xëy na maître Ousmane Seye taqe xam nga maître Ousmane mm-hmm. dafa aay daal non c' est ah oui bu mag la man damay faral di wax sax. ñaar magama ci doy. avocat ak chauffeur. mag rek ma ci doy. maanaam kon fii euh, ku fi jàpp te amoo avocat bu baax. di nga am problème bu rëy avocat faw nga am avocat bu baax no avocat moom li may wax nit bu ma wooyee li ma njëkk wax damaa sàcc nga naan ma ne ko ndax am nga avocat mm -hmm. parce que avocat kuy dem kuy dem euh, tribunal te amoo avocat mm ngi mel ne rek ngay dem guerre te amoo arme amoo gilet pare-balles amoo mhm. dara mhm. avocat mais am na ñoo xam ne amul lu ñu avocat. malheureusement mais assistance judiciaire am na fi. Ah, boo demee tamit liggéey bañ ca war a def ko ci def tout le temps da ngay di ko si si si si dañu yi tamit sont suffisamment responsables. ba hmm. amee assistance judiciaire nañ la taxaw loolu moo xam naa et puis sont très humanitaires. Hmm. man maa sant yàlla. j'ai beaucoup d'amis parmi les avocats j'ai fait vingt ans de carrière mosuma xuloog avocat te avocat yi nag yàlla ma yàlla baal ñoo gën a compliqué <laughs> mais yàlla may na ma mhm. avocat musta bind ci man mhm. avocat mosuma dénoncé je n'ai que des amis avocats mhm. moo tax ma ne képp koo xam da nga am problème balaa ngaa def dara dugg tribunal demal nga wuti avocat waaw parce que avocat gis naa man franchement am na ay cas yoo xam ne. Mhm. bu ñu ma waxoon nit mën na ci génn. mais gis naa léegi waaw léeg-léeg nga gis ci ay jinne daal franchement. voilà mm. euh, ñu ñëw ci indépendance de la justice loo ciy wax. waaw indépendance de la justice. bokk na ci xeex bi tamit magistrat yi sax dañ koy xeex. xam nga justice. corruption bi ci biir justice bi. sànq sax laal nga ko non corruption moom greffier ainsi de suite. corruption. Mhm. fa njëkk commencé am mhm. na. te gis nga li ko mën a dindi. bokk na ci suñuy revendication maanaam nit du tiim ay enjeux yu ngand ba weer dee nga koy fay ay deux cent mille ak deux cinquante mille du ko mat mm-hmm. bu demee il faut mu sàq pexe mm-hmm. même bu nekkoon ku jub bu ko yàlla jàppalewul mën na jubadi mm-hmm. euh, ay augmentation am na ci justice bi am na ñu ñu yokkaloon c'est bien bu leen doyul sax mën nañu demander ñu yokkal leen Mm-hmm. waaye ñun ñi nga xam ne mosuñoo am benn augmentation nañ ñu augmenteel ba nga xam ne nañu mën a sàmm suñu ngor mm-hmm. ndax da gis ko fi liggéey ñaar fukki at ak lu teg du am kër du am oto ah, il est obligé mm-hmm. pour sàmm ngorom waaw maanaam sax kër gu ma dugal sama njaboot tax nga def na ko sudul noonu je te jure waaw nga nangu benn pot man exemple toll comme man man mii ma toll j'ai j'ai euh, quarante ans ak lu teg mais sama kër papalaa laa dëkk ba tey. Mhm. ci ndakaaru njaay gi lenn tey bu ma bëggoon am benn standing de vie il faut ma am nu may def bu ma bëggoon woote jomba ñaaw. bu mhm. yàggee ñaaw fekk ma ci. Mhm. donc tu es obligé de vivre avec l'extrême nu mu tudd minimum. boo bëggee jub moo tax ñuy xeex comme ay gaynde ndax bu ñu defaraat condition. non sinon bu ñu ko deful rek musiba am bu ñu ko deful rek gis nga te tribunal naa la xamal dara de. Euh, gis nga bu ñu def defloo wala bu ñu seetaanee ngeen baal ma ci terme bu ñu mm-hmm. seetaanee ba Malick Sall lii mu bëgg def mu dal. Mm-hmm. bu yàggee ñëpp ay dëng. ndax nag dañu toll maanaam ku jub dootoo am ca justice. justice bi war a jubati waaw dinañu toll foo xam ne nag. Mm-hmm. dangay ngay taxaw di ah man léegi ma retraité xaar nag ma sàkk pexe waaw. waaw xaaral de xaaral deli. man liggéey naa vingt ans vingt cinq ans. aw ma dara xaaral. di nga toll xaaral ma def ni gars yi di def di nga toll. dama mës a gis boobu yàgg na benn jànk bu ñu mës a jàpp mooy jànk yooyu di jaay seen bopp guddi. Mhm. ñu indi ko tribunal après ma xamante ne moom di waxtaan ak moom laaj ko. Mhm. mu ne ma toll nañu fu ñuy wax der yàqu aajo faju mhm. bu ñu deful ndànk loolu la ñuy nañ dem ba dugg ci loolu maanaam der yàqu aajo faju sa der yàqu. waaye sa der yàqu dañ ne bon nga waaye sa aajo faju na. nit dina toll foo xam ne faj aajoom dina ko jaral lu nekk. lu nekk nañu moytu loolu am. si. maanaam pour eh, su ma la déggee pour indépendance su justice sénégalaise. non déedéet excès gu ñu si indépendance corruption bi. ak xeex guerre bi. encore waaw guerre bi la ñu doon nag faaw ñu mettre les greffiers les travailleurs de la justice dans de bonnes conditions dans de bonnes conditions parce que ñun ñoo téye mhm. service public de la justice mhm. service public de la justice mooy nit ki bu ñëwee tribunal damaa soxla casier ñu la am damaa soxla sama jugement ñu ne am damaa bëgg dem tribunal ñun ngay waxal. Mhm. doo wax juge juge yaa ngi sa gannaaw. Mhm. ñoom àtte la ñu am bu ñu àttee pare nañ. pare nañ seen biir lépp yéen a koy def. tout ce qui est service public ñun ñoo ko yor léegi nag mbiru indépendance de la justice problème la man du ma ne problème mais débat la. Mhm. débat boobu man dama koy bàyyi sama xarit mon frère Souleymane Teliko. nga invité ko fii. mu wax ci mu wax dina ci wax xelam xalaatam yëpp man parce que dans au niveau. Euh, de la qualité du service public de la parce que nee nañ tant que euh, hmm. mais yaa ngi ci biir justice. tant que président mi ngi fal. Hmm. ministre de la justice. Euh, indépendance de la justice du mën a am. ça pose problème. waaw xam nga pourtant day ku nekk da ngay jot ay directives ainsi de suite. déggoo supérieur déggoo ma wax la ci benn mbir ma ne. président moo la fal ministre li li président bëgg lay def. mooy kii si procureur bi. ainsi de suite bu rëy la. Mhm. mais comme ñun du ñoo cohabité. Mhm. mu nekk revendication magistrat yi. Mm. ñun suñu revendication mais yow loo si xalaat yow. ko ah, sama xalaat. waaw euh, yéen ñuy te ak juge yi si de suite. waaw sama xalaat man daal mm. li ma mën a wax. Mm. Eh, juge daal may juge may liggéeyal. ñoom ñoo war a porter le combat. waa ñoom mais sama xalaat daal mooy juge daal. gis naa ne ay nit ñu jub lañu ñu jàmbaar lañu état bi war na leen dimbali. dimbali leen nag mooy déglu leen ndax nit ku nekk sa mettit yaa ko xam. say bëñ buy metti la nga koy la ngay yëg sa yaram man xaw ma mais ñun ñi ngi si dans le niveau. Mhm. de la qualité du service public de la justice parce que ñun foofu la ñu taxawee. ndonte sax. Mhm. Euh, ñun on participe à l'exercice du pouvoir judiciaire parce que le, le pouvoir judiciaire euh, cours des tribunaux yi ñoo koy organiser. Mhm. ñoo koy exercer. te ñun on est membre des cours des tribunaux ñun greffier yi. mais ña ko porté. mooy juge yi waxuma la magistrat yi sax mais si biir magistrat yi juge yi. moo tax man. Euh, question boobu dama bëggoon nga posé ko Souleymane Teliko. Teliko nga woo ko mu ñëw fii bu ma mm. jógee fii nee naa ko bu ma naa ko gis ne ko grand waaw grand la ndax <laughs> mu ñëw fii ñu waxtaan ci indépendance de la justice wax la benn ironie sax moom mm. moo nekkoon mm-hmm. sama président de jury bi may génn. Mm. Euh, euh, greffier y' vingt ans ci gannaaw. Mm, mm, naa ko gis woo ko ne ko ne ko. comme ça mu ñëw fii ñu waxtaan si day Kumba Maroon nee nga ñëw <laughs> waxtaan ak moom quoi. Moro sant ma ah, Maroon nag Moro waaw wax nga <laughs> euh, temps bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw maa ngi tàggu auditeurs émission bi. Mm-hmm. di lancer un appel au président de la République Macky Sall. ne mu taxaw le service public de la justice. Mm-hmm. parce que le service ju euh, service judici euh, public de la justice mi ngi commencé dee. Mm-hmm. te moom moom la constitution gàll. Mm-hmm. la responsabilité du bon fonctionnement des institutions. alors que les cours des tribunaux ñoom ay institutions la beneen bi. may wax sama collègues yi ak sama camarades yi. olof Ndiaye nee na bu njaab yàggee gawar feeñ waaye tamit bu xare yàggee. jàmbaar feeñ lii ñu def fan yi yëpp xeex bii ñu def mm. échauffement bi dong la ñu doon échauffé wu rek xeex bi nag mu ngi doog a commencé mm. na ngeen jàmbaar mooy lama leen yàgg wax waaw li yonent bi <laughs> sallallahu alayhi wa sallam bu leen ñaan yàlla jihaad mm-hmm. waaye bu jihaad ñëwee na ngeen jàmbaar mm-hmm. toog nañ fi di xaar mm-hmm. di xaar ba ay ay ñu ay nit ñoo xam ne jàppee woon nañ leen ne ay jàmbaar lañu génn na ñun on est corrompu duñu ay xeexkat waaye ba xeex ba génnee ah gis ngeen lañu ñu def démb dem nañu dem ñoom jox def jébbalu ji dañoo dem jébbalu ji. Mhm. waaw dem jébbalu jox seen njébbal euh, ministre de la justice. Mhm. waaw jël fa jël nañ fa nag ay engagement xaw ma yan engagement lañ fa jël nag ah gis ngeen ko parce que démb gis naa kenn ci ñoom génn ci télé bi de tribunaux marche te xam nga li may wax rek. Mhm. leader waru di kàcc leader day wax dëgg. waaw même bu ñu lay teg paaka sa pour dellu wax dëgg. ndax nit ñi bu ñu demee ba gis ay kàcc yow dootuñu la gëm. da ngeen koy kii est-ce que est-ce que du ñu def cent vingt heures bii di ñëw. Ah bon <laughs> dina métti ci askan wi de maître ah. Aya Boun Malick Diop ñu ngi koy euh, remercier bu baax a baax ci disponibilité am nekk secrétaire général bu syndicat des travailleurs de la justice du SYTJUST di remercier suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier euh, Mamadou Diawa Diallo ci technique bi Léon Paul di ci réalisation bi Ndeye Comba moro di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission euh, beneen thème ak beneen invité émission bi tamit mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube euh, Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah.